alhamdulillahi sil ghufrani wal karami venue fi nga xam ne mooy supermarché seen terang nekk fii ci diwaan bu Diourbel andil leen lépp lu jëm ci wàllum poissonnerie droguerie électroménager alimentaire vaisselle ngir gunge leen ci biir weeru koor gi supermarché seen terang andil leen na lépp luy charcuterie lépp luy fromagerie lépp luy café lépp luy meew tout ce qui est boisson ak bépp jumtuwaay boo xam ne da ngeen koy yittewoo ci seeni préparation ndogu ci prix yu xéwale lool faites vos commandes au 96 wala 76 644 16 12 ña nga nekk foofee ca Diourbel ca quartier Escale à côté de la banque CBAO gérant ba di René Mouka yéen waa Diourbel daw si leen gaaw supermarché Sen Teranga moo leen di ñaanal kóoru jàmm Yàlla